di njëkkee suñu kàddu di wax ne suñu xel ak suñu xalaat yépp mu ngi ci suñu président de groupe parlementaire Birame Souleye Diop ndax yaakaar naa ne daan ngeen ko miin bu ñuy def point de presse wala conférence de presse moom ngeen ñu gis mu toog fii àndandoo ñun ci liggéey bi def ko ni nga xamante ne si noonu la ko askan wi bëggee ñuy wax ne nag li nga xamante ne si moom moo daanu ci kawam ñu teg ko ko tey jii nii ñun li ñu jàpp mooy tooñ mu ngi ci procédure bi defuñ ko ni nga xamante ne si noonu lañ ko war a defee parce que assemblée nationale dafa ubbi doon liggéey ba ñu tëj session bu ñu tëjee session am na procédure boo xamante ne si bu dee jàppuñ ci député ci flagrant délit am na noo xamante ne si noonu la waroon demee moo tax ñun ñu jàpp ne dañu violer li nga xamante ne si moom mooy règlement intérieur u assemblée nationale ci ni nga xam ne noonu lañ ko patam patamee ba jël ko yóbbu ko fi nga xamante ne si moom mooy Sébikotane ginnaaw bu ñu violer règlement intérieur assemblée nationale en son article 51 dañu violer waat la constitution du Sénégal bi nga xamante ne si moom moo ñu lié ñun ñëpp muy suñu charte ndeyu réew. moom it mu am procédure bu mu wax ne moom la ñu war a topp député parce que député kenn amul sañ-sañ topp ko te liggéey yëkkatiwoo li nga xamante ne si moom mooy mbalaanu kiir laayam ñu koy wooyee immunité parlementaire bu dee ne jàppee woo ko flagrant délit ginnaaw loolu nag euh, groupe parlementaire bi jëloon na ay initiative yoo xamante ne si pour wax ne dañu soxla suñu président groupe parlementaire parce que dafa am liggéey boo xam ne yéen ñi xam ne assemblée nationale di doxe dangeen xam ne président groupe dafa am liggéey boo xam ne bu am solo la moom moo doon relais ci député yi bokk ci groupe parlementaire par rapport ak li nga xamante ne si moom mooy président assemblée ak li nga xam ne moom mooy bureau bi. moo tax gis ngeen woote nañu tey assemblée nationale peut-être adjoint mu ngi fi muy honorable député Cheikh Thioro Mbacké moom mooy continuer liggéey bi. mais groupe parlementaire bi li mu wax mooy dañu soxla suñu président groupe nañu ko bàyyi mu ñëw dellu si waat def li nga xamante ne si moom mooy liggéeyam ci loolu defoon nañu résolution boo xamante ne si groupe parlementaire Yewwi Askan bi ñoo ko def pour euh, wax ne nañu def arrêt des poursuites pour mën ko bàyyi mu ñëw rejoindre ñu ci assemblée nationale ginnaaw loolu nag conférence de presse bi yaakaar naa bi ñu ko li ñu tax ñu woote ko yéen ñëpp tey ci suba yéen a ngi woon à l'assemblée nationale mooy assemblée bi dañu convoqué session d'urgence parce que wax naa ko sànq assemblée bi tëjoon na ñu ne dañuy jël vacance mais ci réglement intérieur bi wax nañ ne y'a possibilité ñu convoqué li nga xamante ne si moom mooy député yi pour régler cas yoo xamante ne si cas yu urgent la ci loolu nag ñu joxoon ñu ay projet de loi yoo xamante ne si président Macky Sall moom moo ko indi ne député yi dafa bëgg ñu càmbar ko Euh, voté ko bu ko defee nga xamante ne si dañ koy exécuter ci projet de loi yooyu ñu wax ne daf ci am projet de loi yoo xam ne révision constitutionnelle la muy suñu constitution la ñuy laal réviser ko bu ñu ko réviser te révision bi ci gën a ëpp doole ci révision boobu mu doon benn article boo xamante ne si article unique la woon ñu wax ne président de la république dafa wax ne moom li mu bëgg mooy dafa fas yéene tas li nga xamante ne si moom mooy assemblée nationale ci saa bu ko neexee parce que bu ñu jàppee règlement intérieur u assemblée nationale dafa wax ne te loolu yaakaar naa président Abdoulaye Wade moom moo ko fi indi woon te moom moo waxoon ne pour protéger légitimité député wala pour protéger li nga xamante ne si moom mooy le suffrage universel des députés mu wax ne assemblée bi kenn du ko tas lu dul matut deux ans ñu jàpp ne nag coalition Yewwi Askan Wi dañu dem assemblée nationale peuple bi voteel leen ñun voteeluñu suñu bopp c'est le peuple qui a fait le choix d'imposer à l'État du Sénégal li nga xamante ne si moom mooy une cohabitation cohabitation boobu mooy li mësul am ñëpp dañu gis ne dafa am te mooy dañu dem ba assemblée nationale bu ñu tuddee ñu am euh, genre équilibre boo xamante ne si moom moo fa nekk pouvoir bu ñu amee 82 wala 83 opposition toute réunie am 82 députés moom mu gëmloo woon sénégalais yi ne wala ñoom ñu gëmloo woon sénégalais ne législature bii du législature bu baax ay législature xuloo la ay législature saaga la bëgguñoo jël di ñu euh, diaboliser ci diaboliser boobu nag dem nañ ba xam ne loolu mënul jàll parce yéen ñëpp da ngeen di seetaan assemblée nationale xam ngeen ne y a des députés et des députés député coalition yeewi askan wi kenn mësu leen a gis ci loo xamante ne si lu dul def seen liggéey la te mooy bu ñu ñëwee à l' assemblée nationale dinañ téye projet yi liggéey ci li ñu war a liggéey défendre li nga xamante ne si moom mooy le peuple sénégalais bi nga xamante ne si moom moo leen yóbbu tey ji à l' national moom nag loolu dérangé na ko ba nee naa yaay dafa indi woon wala boog dafa indi benn modification constitutionnelle boo xamante ne si dafay permettre président de la république mu am sañ-sañu ne assemblée nationale bii kat mën naa ko tas moom moom moo xam peut-être lim ci jublu mais ñun li ñu jàpp mooy recul démocratique mënul weesu li nga xamante ne si loolu la naroon def. parce que Sénégal daa am foo xamante ne si dafa jóge ci wàllu démocratie am foo xamante ne si jaar na fa ñu gis. ne lépp loo xamante ne si am nañ ko tey jii lenn moo ñu ko may mooy combat moom mooy xeex ba am li nga xamante ne si loolu lañ bëgg ñu gis ne nag moom dafa bëgg a ñëw delloo ñu waat des années en arrière ci li nga xamante ne si loolu lañu vivre nit du am ay ak acquis ba toll fi mu toll yow ngeen ne da ngay toog rek yow yaay président de la république maa am sañ-sañu euh, dàqe maa am sañ-sañu voté maa am sañ-sañu euh, def li nga xamante ne si moom moo ma neex te bu ñu fàttalikoo ci lu gàttul rek te yàggut fond Covid yi barki démboo Njaay la lan moo ñu yóbbeel coow fond Covid mooy assemblée nationale dafa voté woon loi d'habilitation jox président de la république sañ-sañ bi ne ko yow yow yaay diriger au nom de tout le pays tey jii nii ñu dem ba gis ne xaalis bi nga xamante ne si moom la nit ñi doon euh, jëfandikoo ci Covid bi def nañ ci ay luubal ba am ay corps de contrôle muy la Cour suprême épinglé ñoo xamante ne si tey jii nii ay ministre la ñu woon. ba léegi coow loolu noonu gis nañ ne ba léegi sans suite moo tax ci loolu ñun ñu jàpp ne du ñu nangu kenn di delloo démocratie ginnaaw au-delà de nos personnes en tant que député dafa am loo xamante ne si peuple sénégalais bi ñoom ñoo ko moom moo tax ci loolu dañ leen di remercier la peuple di leen wax ne gëm nañ ne ñun ak yéen ñoo bokk combat ndax am na loo xam ne bu ko état naree def ne da koy teg ci kaw population en dehors des député que nous sommes yéen ngeen jug taxaw wane ne am na loo xamante ne si duñu ko nangu ba ñoom nee nañu peut-être projet bi danañ ko retirer loolu la ñu wax mais ñun ba léegi à l'état document yi ñu joxoon moom la ñu yore nii ba léegi jotaguñu li nga xamante ne si moom mooy projet bi wane ne retiré nañ loolu nga xamante ne si moom la ñu waxoon ne dañuy dissoudre jox président de la république ci ndigalu première ministre ci ndigalu président assemblée nationale mu am sañ-sañu ñëw ne damay dissoudre assemblée nationale. demee nag incha allahu rabbi moom la ñu woote ne dañuy def commission technique yi tey def nañ ginnaaw bi ñu ouvriree session bi parce que sénégalais yëpp dañu yaakaaroon ne lépp tey lay xew alors que tey dañu waxoon ne dañuy dem. ouvrir session extraordinaire comme que session bi daa tëjoon session extraordinaire la dañ koy ubbi tey ñu def ay réunion de président des euh, euh, conférence des présidents bu ñu paree ñu tënk calendrier ne calendrier bi nii lay demee pour ñu mën a def travaux de commission yooyu ci loolu nag demain incha allah la ñu wax ne si la travaux de commission yooyu di di di di démarrer ñi ngi xaar demain incha allah ba xam on va nu présenter les mêmes textes ou bien le texte ou bien l'article concernant c'est-à-dire l'article 87 concernant la dissolution de l'Assemblée nationale dinañu ko indil waaw wala déet beneen point bi nga xamante ne si moom moo nekkoon ci article unique boobu di révision code électoral bi dafa am benn point boo xamante ne si ñu ko doon wax parenage bi. point parenage bi Sénégal ñëpp xam nañ ne dañu amoon benn parenage boo xamante ne si moom la def muy parrainage citoyen parrainage citoyen boobu xëy na amoon na ay gàllankoor yoo xamante ne si dina ko indil ñenn ñi ñu ne dañuy revoiraat taux bi nga xamante ne si moom lañ ciy demee taux boobu su ma juumul. 8 pour cent la woon mais 0 0,8 pour cent la woon instant bii ni indi nañ ko 0,6 pour cent ci loolu ñu indi ci beneen nouveauté mooy dañuy permettre ñi nga xamante ni si ñoom ñooy élus yi député yi maire yi président conseil départemental yi ñoom aussi ñu am possibilité parrainer ay candidats loolu nag parrainage boobu dañ ko limité dañu wax ne ku amul euh, euh, euh, nu ñu koy waxee di ku amul treize députés mënoo maanaam euh, treize député mën nañu ne benn candidature ñoom sax dañ naan la candidat alors que on ne parraine pas un candidat on parraine une candidature